salaamaaleykum chers internautes ak téléspectateurs yi nga xamante ni yéen day seetaan li di Rewmi TV dalee nag jàmm si seen émission actu Rewmi comme ni ñu koy defee saa su nekk actu Rewmi ñu a fës ni moom mooy ci biir réew mi ak bitim réew comme ni ñu koy defee saa su nekk rek dañu daal di waxtaanee tey suñu actualité bi nga xamante ni moom moo gën a fës ci réew mi rawatina li nga xamante ni mooy Macky Sall ak situation wu euh, biir réew mi li nga xamante ni moom moom moo lëmbee biir réew mi ci Jibril Ngom mi nekk euh, Yewwi Askan Wi waaye tamit dinañ wax ci euh, Macky tamit ak charte euh, de non violence bi nga xamante ni Sonko ak ñi nekk opposition bi daan nañ ko bañ loolu lépp nañ ko waxtaanee toftal si ak scandale yi nga xamante ni ñoo am ci biir réew mi rawatina li nga xamante ni moom mooy Miss 2021 wàllu coow li nga xamante ni moo duppee ci Gaston Mbengue ak convocation Mame Makhtar Gueye fa nga xamante ni mooy division des investigations criminelles ñu jeexalee ni mooy États-Unis euh, muy euh, African Leadership Award bi nga xamante ni moo amoon ca New York te euh, kii di Mbagnick Diop ak mouvement des entreprises du Sénégal amaloon ko foofu moom la ñuy tëjee suñu actualité tey waaye laata ñu dugg ci waxtaan bi damay daal di bàyyi ki nga xamante ni moom mooy sama chroniqueur saa su nekk mais bokkal plateau bi mu daal di nuyu ak téléspectateurs yi monsieur Fall ñu ngi lay nuyu baax a baax. Mor ñu ngi lay fay Fall Ndiaga Yaram di la wax rek ne tey jii defe naa ne cin li moom li ci biir yëpp xumb na dina dina am xorom te itam dina neex eh, yàkkale mm-hmm. waaw di dellu nag eh, di kontaan ci eh, retour bi nga xamee ne moom la ñuy defaat ci ak internet yi dégg nga laata loolu nag ñi nga xamee ne mais experts de l'ombre ñi nga ñoom mm, Malick ak yi mm-hmm. ñoom Momo ak suñu xarit Papa Ndiaye mm-hmm. dégg nga ñoom ñëpp ñu leen di wax rek ni kontaan nañ bi ñu dellu siwaatee ñu encadré ñu nii ñu war a nag faram-fàccee li nga xamee ne moo di actualité bi nga xamee ne comme ni ma ko waxee rek xumb na lool lool mm-hmm. lool waaye nag euh, xëy na lañu ñu ciy génne. Mm-hmm. dinañu war a mun a permettre pour que rek ñu dal di euh, indi finalité bi mooy que ne rek Sénégal dal ci jàmm. Mm-hmm. Sénégal dal ci jàmm ñu mën a xam actualité bi nu mu waaye dañ koy euh, commencé ak li nga xamante ni moom mooy à la une de Rewmi quotidien ak African Leadership Awards yi nga xamante ni bind nañ la une l'Afrique célébrée New York waaye tamit euh, ci Rewmi Quotidien ba léegi Amsatou Sow Sidibé un juge ne doit jamais brader sa dignité euh, Djibril Ngom reçu au palais Macky s'est tiré une balle dans le pied euh, toujours ci Rewmi Quotidien partie sportive bi Prime League on a on n'arrête plus Mané et les Reds Liverpool veut retenir Mané jusqu'au janvier le 2 janvier Chelsea de Mendy cale face à Manchester United toujours ci euh, réew mi quotidien sport euh, mondial 2022 euh, tirage au sort des barrages en janvier loolu moo nekk li nga xamante ni moo gën a fës ci réew mi quotidien donc dañuy ubbi suñu waxtaan actualité bi ak li nga xamante ni moom mooy coow li am ci biir réew mi ak situation politique bi Macky Sall fii Macky Sall fële ñu ubbee ak li nga xamante ni moom mooy retour post premier ministre bi nga xamante ni jamono ji ñu ci bëri ñu ngi ŋàññi Macky Sall ne dafay def tâtonnement ci wàllu politique que est ce que gis nga ne euh, Sénégal war nañoo mën a toll fu ñuy supprimer à chaque fois di euh, salfaañ li nga xamante mooy constitution bi parce que bu ñu waree andi li nga xamante ni moom mooy poste premier ministre foog ñu amaat ay modification ci euh, constitution bi débat fi nga xamante ni moom mooy assemblée national ngir ñu mën a indiwaat boobu poste yi nga xamante ni Macky Sall moom moo joon dogalu daal di koy supprimer ginnaaw bi mu amee mandat ci li nga xamante ni mooy atum 2019. waaw Mor sa laaj bi dina ci sawar a tontu. ndaxte xëy na Macky Sall ba muy toog ci waxtu bi nga xamee ne violence bi jafe-jafe askan bi ak ni nga xamee ne askan bi noonu lañ ko mere ak politiciens yi seen euh, euh, di jóg ak dugg ak génn beeg yi ñuy def yëpp yaakaaroon na ne. Mm-hmm. waxtu bi xaw ma kan a koy xelal que bu génnee ay poste premier ministre dina mën a def effet. pour euh, orienter xalaatu nit ñi ci leneen far nag nit ñi sax dañoo mel ni ku ciipatu rek daal di ko tegaat foofu mu indi ko ñàkk ko indi deful benn effet bi nga xamee ne moom la ci doon yaakaar. mais mais est-ce que jàppoon ne li ñu wax naan Macky Sall avant moo sax andiwaat premier ministre bi dafa def bilan wax lan ba bu mu ko dindee. ban ban jàng la am ci ci ci biir gouvernement bi aussi lan moo waral mu bu kut kut ba ko andiwaat est-ce que nekkul dafa am lu nekk suuf loo xamante ni moo waral Macky ko ñenn def ko leer na au premier janvier dafay nar a nekk président de l'UA dégg nga pré président euh, Union africaine. waaw bu demee ba nga xamee ne du mën a téye comme mi daf ko defoon pour que daal di euh, évacuer les affaires d'urgence euh, fexe ba nga xamee ne ministre yi dina leen mën a surveiller comme ci jox instruction di nga ko mën a appliquer ak yeeg yooyu bu demee ba nekk président de l'UA l'Union africaine xam nga dootul amati euh, nu mu tuddati présence boobu nga xamee ne dina ko mën a permettre pour que mu daal di kii parce que fii ci des euh, deux a ko fi de deux ans ko fi dese mm-hmm. balee un an la kii bi présidence bi bu dellu siwaatee fi bëgg a ñëw taxaw ak yeeg yooyu yaakaar na ne bu bàyyee bu waxtu bi mu dul nekk fi premier ministre bi dina mën fexe ba daal di euh, euh, les affaires courantes. mais si loolu ci mbir moom parce que dafa mel ji euh, le président Macky il est tellement perturbé il est tellement obnubilé par li nga xamante mooy wàllu pour lijjanti troisième ji ay diini def moo waral mu ne day andi poste premier ministre di recevoir ñenn ñoo xamante ne dañ leen de haute trahison donc yooyu nga xamante ne ñu gis à chaque fois yow est-ce que jàppale fi mu nekk nii Macky Sall doit doit euh, donc euh, euh, dem en arrière xalaataat fi mu teg tànkam parce que jamono ji gis nañ ne si ay dérivé lay lay la nekk. la ci biir xelu Macky Sall la ñun mënuñu dem frenkulaayu foofu. pour mhm. di ko génne. Mhm. li wóor daal mooy. am na ay succession de bourde li ñuy wax bourde moo di que ni erreur yoo xamee ne vraiment matu ko woon ndaxte bu demee ba nga xamee ne toll nañu fii. ak lu Macky sàll ak fu mun munti jaar ak lu muy def pour jéem a fexe indi troisième mandat boobu kooku dafa leer ne sénégalais yi dañu braqué wu toog di ko xaar ne ko du fi mais mais mais mais juum benn yoon la mais booy juum juumaat est-ce ne ko yàq tey. non li ma lay wax. buy ju juum beeg burdu yi ko nit ñi di def loo. Hmm. ndaxte Macky Sall moog yow ñoo yëpp. bu demee ba nga xamee ne ñëw nañ ne ko eh waa ji trahir na waa yeew yeewe askan bi mm-hmm. léegi kaay recevoir ko mu daal di ne mais kii bu ma ko recevoir peuple bi luñ may wax waaye ba nga koy recevoir sax mu ngi jël enveloppe xaalis teg ko ci suuf ak yéegu mel noonu ñuy jël yooyu di ko wone mhm. ce qui veut dire que ni Macky Sall en lui-même c'est un c'est des erreurs de communication lañ koy defloo mhm. recevoir loo ne dañ day ñëw taxaw rek ñu ne ko recevoiral diw bu recevoiree diw ñu daal di ne bon voilà man euh, décroché nañu bi bi mu fi jëlee Moussa Sy dafa ne j'ai pris un gros poisson daal di ko jël recevoir ko dégg nga ci euh, communication boobu foofu la jëlee indi indi euh, ay enveloppe bu xaalis trahir ay nit pour jéem a wane ne man maay ngande mi man maay géej gi mel noonu kooku mu jël indi ko noonu foofu ñu ko foofu mu trahiré ak ki nga xamee ne moo di euh, Farba Ngom soo duggee ci réseau sociaux yi ñu ngi taxaw di xool di càmbar seen alal ji fuñ ko jëlee ak nan la demee. Mm-hmm. donc gis nga yooyu yëpp ce sont des choses yoo xamee ne euh, képp ku ci yaakaar que ni di nga mën a làqatu ci ay troisième mandat wala euh, Macky yàgg fi pour que nga bañ a mën a booba temps nax nga sa bopp. mais mais yow euh, est-ce que am nga gis-gis ci euh, ki recevoir parce que est moom moom mooy si moo ciy fës te kenn koo xamante ni dañoo jàpp dafa trahir loolu Macky war na ko def en tant que chef du ma wax en tant que président de République mais en en que. sénégalais ci sénégalais ci ngor sénégalais ci ci am jom sénégalais yi nga xamante ne day day wane li nga xamante ni moom mooy moom mooy euh, nit ku nit ku gëm boppam est ce que loolu war na ko mën def euh, ci ci kanam sénégalais yi recevoir kenn koo xamante ne dafa trahir ay ay ay ay ñoñam Mor xanaa doo dégg li ma la nee naa la plan de communication biñ koy tegal moom lañ koy dugalal ay ndëgg sërëx yoo xam ne mais plan de moom nit la mën a mën a jël ay mais bu jëlee nit la war a mën a demee moom bu fekkee ne nee ñu ko sénégalais yaa ngi bëgg a dee xiif mhm. yi pour que ñu daal di xëy suba ndékki c'est tout un problème d'ailleurs ndambe bi nga daan ndékkee sax euh, euh, euh, haricot bi kii bi nu mu tuddati ñebe gi ci boppam sax n'est plus accessible dégg nga ci biir Benno Bokk Yaakaar ay frustré ñu nga fa mhm. bi mu nekkee ci mandaam ba tey ñooñu ñu ngi koy jël di ko woo pour que mu daal di leen recevoir munu leen recevoir yaa ngi dégg mu daal di jóg dégg nga mu toog daal di ne kii def nañu un bon euh, un ba ñu toogee ba nga xamee ne rek euh, cour d'appel yi dello delloosiwaat nañu euh, yeewi askan yi ci seeni droit foofu rek la Macky Sall waroon na mun a xalaat dal di ne non c'est pas la peine may woo kii. Mm-hmm. de surcroît mu woo ba pare indi xaalis bi teg ko nit ñi di ko xool dégg loolu. dafa nekk ci euh, li nga xamee ne rek moom la toujours gaañi di génne di wax ne Macky Sall dafay fonto peuple bi. day fonto peuple yi teg si ñu ne léegi fi mu nekk nii dañoo war a signé benn charte de no violence ba tax na Sonko ak ñi xamante ñooy ñeen si opposants yi opposants yi neen duñ ko signé donc est ce que nekkul lii sax euh, dina tax sax ñu bëri ñu ne duñu duñ duñu signé euh, li nga xamante ne moom mooy pacte de non violence parce que Sénégal di gis yenn yi seen xol di di di tàng ba bu ñu jugee ñeen bu ñu signé yenn affaire est ce que nekkul loolu exécuté seen kaw moo waral ñoom ñu ne duñ signé li nga xamante ne mooy euh, pacte de non parce que xam nañ euh, li nga xamante ne moom moo nekk ci ginnaaw. non li ma lay wax rek Sonko bañ a signé taxul ñeneen ñi war a bañ a signé. parce que mm. Sonko nekkul référence bu ñu war a signé affaire bi bañ ko war a signé. Mm. waaw man foofu laay jëkk xalaate waaye boo buggee signé loo ay nit. il faut que nga daal di jël li nga xamee ne moo di nga dem ba ci ñoom nga waxtaan ak ñoom ba boo jógee nag daal di toog ne leen xëy suba daal di ne leen pacte de non violence la signé leen bu ñu bañee loo ca am nga jël. Hmm. foofu daal laa ci yem. Hmm. ndaxte li wóor moo di que ni xëy suba rek ñu ne la pacte de non violence ngi dégg nga signé ko dégg nga euh, mais parti de non violence parce que Sonko signé wul parce que kii signé wul euh, parce que xalifa Sall signé wul loolu euh, nekk na loo xamee ne dafa war a jóge Sénégal. Hmm. Sénégal bu ñu toogee bugg a fexe ba daal di def ci jàmm. def ci li nga xamee ne moom la ñu war a yóbbu ci développement bi nga xamee ne moom la ñuy xalaat di aspirer il faudrait que ñun ñëpp ñuy mën a toog dégg nga kenn bañ a nax kenn. Hmm. bañ a def ni affaire bukki boo ko paaka ci gannaaw ba pare daal di nekkaa leen ñu waxtaan. Hmm. loolu boo ko defee da gis toujours. dañuy def rek retour à la case de départ retour la case de départ mooy toujours ñuy delluwaat fañ jóge woon rek soixante ans ngi ni mënuñu fexe ba jël benn euh, roue avion sax defar ko fii Sénégal. Mhm. donc jàpp ne kon nekk nii gars yi waruñoo topp ci ginnaaw naan Sonko wala Khalifa Sall mais ñoom ñoo war jël seen matuwaay bopp xam li ci nekk. ku ci nekk sa responsabilité bopp ngay jël. Mhm. te boo ba ñu jógee ba ne dañuy def pacte bi ba pare balaa ñu ko doon soumettre nit ñi waroon ñu laaj nit ñi. d'abord. Hmm. boo laajul nit ñi ak yég yooyu ba nga xamee ne gin mais mais mais eh, da ngay def rek boo boo ñëwee ñu daal ne la li nekk ci gannaaw mooy bukki bi yore paaka bi ci gannaaw bi rek doo xam lan moo nekk ci gannaaw lan hmm. moo nekk ci biir kii bi. Hmm. loolu moom laa lay wax ne la ku ci nekk da ngay war a jël sa responsabilité responsabilité bi nga xamee ne moom nga war a jël moo la war a mun a permettre nga signer euh, euh, ou signer waaye Macky warul tax nga signer wala lu neex Macky nga signer yow euh, Sonko signé wul dégg nga parce que kii yooyu parce que il faut que ñu delloowaat buum ci boy boy gi il faudrait que Euh, opposition bi ak ñi nga xamee ne dañ leen féetale violence bi ñoom ci seen bopp ñu daal di mën a setal seen der daal di wane euh, un franc par rapport au peuple par rapport au gens yi nga xamee ne ñoom ñoo nekk di opposé wu. Mm-hmm. yaa ngi dégg par rapport au peuple en général. mënuloo toog dégg nga euh, ñu naan ñu daal di bëgg a toog naan la yow référence nga ba pare te bu dëkk bi di tàkk ci yow lay jógee. mais kon est moom moo am problème euh, xam sensu lan mooy euh, opposition dans sa globalité parce que Sénégal ñu bëri boo ne opposition rek pour ñu opposition la xeex dóor est-ce que loolu moo nekk problème bi moo waral à chaque fois dañuy jël kenn rek bu ne bu ne lii rek ñu topp ci ginnaawam en priori ki nga xamante ni moom mooy Ousmane Sonko. Sénégal affaire par par loola. Euh, opposition ak euh, nu mu tuddati pouvoir ay parparloo affaire parparloo la violence bi ci boppam mun na ci bañ a ñàkk ba ñu demee ba nga xamee ne toog nañu ba ne Sénégal démocratie la démocratie bi war na mun a nekk ay euh, débat d'idées yoo xamee ne war na mun a tax réew mi ñu set bu situation bi mel nii il faut que ñu ndëppal réew mi hmm. xool li nga xame ne moo nekk ci biir ak li nga xame ne moo nekk ci kii ba mu bañ a am ni affaire ku ma am ndey ku am euh, ku ma am ndey ku ma amul ndey da di toog nag daal di taxaw xam ne yow tey ji jox nañ la réew mi suba man suba may diriger réew mi hmm. gannaaw suba kii la gannaaw ma toog jékki-jékki daal di ne man maay seek euh, président de la république sama rak dégg lu ko neex war na def ba dugg ci li nga xamee ne moom moo doon affaire policier yooyu. Mhm. nga xamee ne jël nañu daal di leen euh, euh, radier dégg nga suspendre leen defaluñ see sax mise à pied parce que bu ñu leen defal mise à pied dañ leen di dax dégg nga ci ñoo xamee ne dañ doon def seen liggéey nga xamee ne suñ la joxee ndombo tànk nga yaakaar ne yow ci sa bopp yow yaay yàlla gis nga Sénégal rek ngay ñëw di gis oto Macky di jàll. ñu ngi ko tente ba doo gis ki ci biir yàlla buy jàll da ngay gis yàlla yàlla toujours mu gis ñu gis ko mu jooy muy kii nii te yàlla moo moo leen fa teg moo kii boo jaaree ci oto ko xamee ne dem na ba am euh, cinq cent mille boo amee cinq cent mille tente vitre dégg nga au à mesure bu dee milliard la nag ñu daal di jël à peine à peine suñ dul jël ay euh, bouclier Euh, bouclier blindé pour re mun a jàll pour mun a romb loolu la xamulaan te boo dee fii la ñuy toog daal di la génne dégg nga muur la ay sëru rabal nga tëdd fii imaam bi naa allahu akbar kii moo baax ak kii mel noonu nañ delluwaat ci yàlla mhm. nañ defaraat suñu réew mi mhm. nañ toogaat seet suñu bopp Macky Sall dañ la fi tegoon bañ la fi tegee da am na jour boo xamee ne war nga fi jóge jour bi nga fi war a jóge da am yàlla maandu nga daal di euh, préparer joxaat ñu suñu yëf ñu jëlaat keneen. Mm. Ah, kon je pense que bu bu la déggee fi mu nekk nii war na laa a woo sa pale ba ngeen toog nga xamante na ci biir euh, xamante ni moom mooy les propos de euh, Gaston nga xamante ni euh, xuloo woon ci diggante ak nga xamante ni moom mooy Barthélémy Dias dem sax ba yëkkati ay propos yoo xamante ne ñi nga xamante ne sax ñu ko bëgg a yóbbu ci wàllu ethnicisme ñeneen ñi sax daal di koy yóbbu sax ci beneen côté mi wàllu religion parce que ñi ngi wax ne ki nga xamante ni mooy Barthélémy Dias ki nga xamante Gaston di yëkkati ay kàddu naan ñoom tekkuñ fi dara bu ñu leen taaloon sax matuñ sax sens dëkk bu ñu leen taaloon du andi benn jafe-jafe ci biir réew mi donc propos yi nga xamante ne ñeneen ñi ngi koy wax à chaque fois ay dérive yoo xam ne dañ koy euh, fekk est-ce a taal réew mi comme ni ñu ko waxee woon ne Sénégal bu koy jaar ci waar waaso xam nga ku mel ni Gaston Mbengue Euh, dafa nekk koo xamee ne euh, euh, li may wax rek xam nga dafa am xale yoo xamee ne boo leen di tàccu rek ñu ëppal dafa am lenn loo xamee ni mosul am Sénégal te dafa am lenn loo xamee ne ku mel ni Gaston Mbengue dañ koy féetale ci euh, Macky Sall xam nga man bëgguma toujours di wax ay Macky Sall. bokk sax moom ci boppam. non même bu fa bokkee. Mhm. même xam ma moom xam nañ ko. Mhm. ba muy euh, ba muy def projet. ba muy def projet pour euh, mën a nekk promoteur di ko bindulu di dem ci ay diir. Euh, délégation à l'insertion la l'insertion ak ñu mel noonu wala ñëw ci banque yi pour defar ay projet ñu koy bindal projet bi pour mu def ko boobu yëpp fii la ñu fekk léegi ba ba magam di nekk ministre fii la ko fekk ba Abdou Diouf di nekk nijaayam ñun fii la ñu fekk yooyu yëpp fii la ñu fekk waaye ba muy nekk ne bokk na PS bokk na taxaw na ak yeeg yooyu yëpp fii la ñu fekk waaye dafa am loo xamee ne mosul am Sénégal te koo xamee ne li tax ma ci tudd Macky Sall moom ci boppam war na toog woo ko ne ko euh, wax yi waxloowuma la ko wala wax yi wàññi ko ndaxte Diaz buñ koy féetale ne dafa reew mais sénégalais à part entière la doomu réew mi la euh, papaam daf fi am lu fi représenté ay mbokkam dañ am luñ fi représenté donc communauté yu tuuti yooyu nekk ci biir ak kii yu mel noonu dafañ def benn Sénégal de quatorze millions boo xamee ne xamante jaas doomam tey ji bu ñëwee sama kër ma may ko jabar yow it boo ñëwee nga may ko jabar mhm. ay affaire communauté ak yéeg yu mel noonu ainsi de réew mi ñaari religion ñoo ko téye ak yeneen animistes yeeg yu mel noonu ñaari religion yi chrétien musulman la chrétien musulman benn yàlla bi la yaa ngi dégg mooy comme ñooñu rek taxawoon fii di wax naan dañu war a diriger réew mi ak charia ma ne leen fu ngeen di defee euh, catholique yi ñun on n'est islamique te dafa am yenn propos yoo xamee ne d'ethnocisme ethnocentrisme yoo xamee ne mosul am moo taxit gis nga bu ñuy nekk di composer ay gouvernement di wax naan dañuy jël séeréer yi dañ ciy jël fukk dañuy jël ci tukulóor yi fukk boo leen waxee ñu ne Senghor moo ko def Senghor ba mu ko def noonu daf doon apaiser communauté yi gis nga sax da ngay toog ba si yàgg ñu daal di ne dañuy mere pouvoir bi parce que ñun suñu nit bu dëkk Kaolack wala bu dëkk Ziguinchor jëluñu ci moom ministre xam nga yooyu dañ koy nekk di ko alimenté di ko bés bu ñu fi jógee nag ci la réew mi di jékki-jékki di def comme Côte d'Ivoire. mais mais mais problème problème je me dis que à chaque fois ñi nga xamante ne ñu ànd ak Macky Sall il day def genre mbir mel noonu mais dara doon ci fekk parce que euh, Doumbourou Sow def na ko fii nee nañ génn jaas yi en direct ñëpp dégg euh, bu ñu wax ne nañ génn jaas yi dara fekk ko ci euh, ñëpp ñu ñeneen wax nañ ko wax yoo xamante ne mën a taal réew mi te bokk yi nga xamante ne Macky Sall ñoo ñu teel mais opposant yi nga xamante ne bu ñu waxee benn mot bu ndaw même fekkee sax mënul taal réew mi lu mu ndaw ndaw ndaw ñu ñu daal leen di Euh, convoqué fa nga xamante ne mooy dikk rawatina ki nga xamante ne mooy Mame Mactar Gueye nga xamante ne dañ koo jamono ji sa division des investigations criminelles ci benn wax ju ndaw ju wax loo xamante ne mën nañoo sa garaawul noonu parce que am ay kàddu yu muy yëkkati jëmale ko ci président Macky Sall donc yooyu ñu ngi koy ñu ngi def si ci ci si kanam yoon donc loolu loolu la gis est-ce euh, am ci réew euh, ba nga xamante Euh, euh, kum ku ànd ak réew mi daal lu la neex wax ku àndul ak réew yow daal amoo droit dara ci ci ci ci kanamu askan wi. li ma lay bëgg a wax rek boo dikkee ni dafa am lenn loo xamee ni euh, sànq rek suma propos yëpp di nga gis ni man li may xalaatee. Macky Sall président des Sénégalais la. c'est le président de tous les Sénégalais. est-ce que c'est le président des Alpulaar. c'est le président des Alpulaar et yi am nationalité sénégalaise mhm. li ma lay mën a wax mooy Macky Sall dafa juddu ci biir sénégalais yi nekk fi xale màgg fi di ànd ak ñun di taxaw di toog dugg université ànd ak ki ay moromam yaa ngi fii jóge fi jël jabar jóge fi am ay doom doomu Macky Sall du ñu ay jinne du ñu ay dëmm mais naka nga mën a toogee institution bu toll ni Macky Sall président de la république nga dindi ko def ko nit teg ko ak makki Sall ak ay sëtam nga taxaw di jël ay propose yu tegginuwul di ko wax suñ la convoqué su ma yoon nekku ci ñu la convoqué daal su ma yoon nekku ci. Ah, mais lu tax lu tax ba fa Abdoulaye waxee kenn convoqué ko ba mu ko ba mu ko jiiñee de de sorcellerie ma ne loolu noonu euh, dafa toog ci waxtu bi dama leen bëgg wax ne bàyyi leen di dugg ci euh, vie privée nit ñi. ndaxte boo rusul Macky sàll itam war nga rus doomam war nga rus ay sëtam war nga rus ay mbokam war nga rus ay frère war nga rus xaritam boo xamee ne war ngeen ànd. Hmm. parce que boo toogee ñu daal di di wax euh, ñu naan la woy woy nga jékki-jékki ëppal suñ la convoqué sa affaire la. Hmm. ndaxte propos yi dafa tegginuwul propos yooyu mosoon nañ ko fi waxal sax Abdou Diouf mais bañ ko waxalee dafa jàpp ko ko wax ne ko ràpp ci kaso bi. donc bu ñu nee ràpp kii dañoo ne dañoo ràpp tamit ne Gaston ne ràpp Dembour Sow ne ràpp ñeen ak ñeneen. mais Gaston duñ ko ne ràpp parce que Gaston. Euh, ci nguur gi la bokk ma ma ne Gaston bu mbokkee ci nguur gi itam loolu mu wax noonu loolu mu wax noonu rappel à l'ordre la. dañ koy rappeler à l'ordre que ni réew mi ay mbokkam nekkuñu fi réew mi bokk ak réew mi taxul ngay mën a wax loolu parce que loolu mu wax ñoom jaaz mm-hmm. bu ñoom jaaz jógee fekki ko ak yéeg yooyu loolu du indi yëmbat mm-hmm. mais Dias luñ ko mun a euh, reprocher waruñu mun a toog ba bay wax naan ñoom motuñu sax temps wala motuñu lii. Mm-hmm. parce que Dias ci dëkk bi la nekk papam dafa fay impôt ba pare papam daf la diriger. papam dafa toog fii de daal di jël ay ay ay responsabilités yu ngand c'est pas parce que dañuy wax ne dafa reew rek parce que lu nekk ñu jóg ko di ko ko wax. ah mais mais mais kon loo bëgg ñu def kon. on est en démocratie. kon loo bëgg loo bëgg ñu convoqué Gaston wala ñu xam lu ñu parce que Gaston dafa dafa wax ba noppi ne li mu wax ragalu ci lenn du ci dellu ginnaaw donc kooku. est mais mais ragalu ci lenn man su ma neexee daa de la wax ne la mais yow sa maam yi bi ñuy ñëw fii dégg nga fii lañ leen fekk ak yeeg yu mel noonu ñu woo ma convocation. Hmm. pour lan loolu loolu rek loolu li mu wax li mu wax dafay inciter à la violence. Hmm. ci contexte bi ñu nekk nii. mais kon kon kon lu ñu war a def kon. lu ñu a def woo ko bu jégalu wala ñu teg ci kaso bi. lu ñu euh, actuellement nii borom dëj mun na jooy dëjëm. ah léegi comme xool nañu xool nañu hmm? xool. nan la jaas yi di réagir. léegi borom dëj bu bu bu woo ay mbokkam ay ay ñu bokkal diine ñëw ñu bokkal leen loolu andi coow coow si dëkk bi. bu boobaa bu ñu indee coo bu naree indi coow ci dëkk bi ki war a atte atte. ki war a atte du atte parce que moom moom la àndal. déedéet dina atte ndaxte fi mu nekk nii euh, justice bi nekkalu fi nekkalu fi réew mi gis nga tey jii maa ngi gis euh, euh, Aminata Sow Sidibé. dégg nga mm. Amsatou Sow Sidibé di wax ne magistrat yi waruñu jaay seen ngor. Mm. loolu laa koy traduire. Hmm. magistrat yi nga gis nag ba ci euh, le euh, haut conseil euh, l' association des magistrats ay magistrats yu intègre ñoo fa nekk du ñàkk nag toujours dina am nag ay exception à la règle hmm. waaye li wóor mais moi je fais confiance en cette justice ñii wax naan ku ma am ndey la ku ma amul la dafa fekk toujours Euh, li nga xamee ne moo fi nekk moom moo di que ni da ngay ñëw jël sa ay billets blanchir ba mu neex nga daal di jël tek euh, saaga ki nga xamee ne mooy euh, Macky Sall ba mu neex nga daal di jóg. dégg nga daal di ne bon sama baay sama lii daal di kii ak yooyu ñu daal di ne la tëj ràpp ci kaso bi nga feebar. Mhm. daal di ne nañ génn leen ma parce que dama feebar. ñu génne la ñu duñ la génne. Mhm. ñu daal di ne ñaari vitesse la. ñaari vitesse la man xanaa xamuloo ne léeg-léeg nga toog ba si yàgg jékki-jékki daal di ne dama feebar maa ci kaso bi ma ne leen ko fa. Hmm. bu xamoon ne dafa feebar du saaga. rapidement à quelques secondes wax ci li nga xamante ni mooy coowal Missy parce que euh, je pense que ji jamono ji dafa accentué mais euh, ay euh, Missy yi dessus yi am suuf yàgg naa am ci biir Sénégal yàgg nañ ko dégg temps Ambroise Sarr yàlla na ko yàlla yërëm te xaar ko àjjana donc. coowal Missy Ambroise Gomis way ba nga déggee coow li ñu ne ay ay di ay viol ñeneen génn wax na si ils sont de viol ñeneen génnaat ba sax ne dañ nañuy tas li nga xamante mooy comité bi donc yow ba nga ko déggee est-ce que amoo ruus ruus sax ci li nga xamante moom mooy euh, li nga xamante ne moom moo war ba ci tudd ay ay ministres ci tudd ay ay ay euh, fonctionnaire ci biir euh, réew mi ma ne li ñuy tudd ay haut fonctionnaire ak ki ak yooyu ci biir réew mi bare na du affaire miis yi affaire miis bi lenn moo ci nekk moo di que Euh, la seen patron ba waxoon daal di ne ku am fayda duñ la violer. Mhm. xam nga dafa nekk ci mbir moo xamee ne ba ñu toogee islamiste yi jóg di wax naan lii dafay favoriser ay euh, euh, xawma olof càggatu la koy wax. Mhm. dafay favorise proxénétisme waaw proxénétisme la ay kii yu mel noonu ñu daal di ne oh non non non non non il a fallu kenn génn ci ñoom wax ko ba ko kenn génne ci ñoom wax ko gis nga ni ñu rëti ni nga xamee ne moom la Aminata Badiane la xaw ma daal di xëccaat couverture bi daal di ne ku en tout cas ku am fayda daal kenn du la kenn du la violé. Mm-hmm. donc ñu daal di dem ba ci biir daal di gis ne affaire viol boobu yàgg nañ di ko ruumanaat problème bi xam nga lan moo ci nekk. procureur autosaisir hmm. ñu xool li ci biir lan la. mais bu defee li ci biir je pense que on va remonter ba ay ba ay ba quatre vingt dix ay miss euh, euh, quatre vingt parce que je pense que yàgg nañoo yàgg toog man temps xëy naa dégg ñu naan miss baaxul dañ leen yóbbu ci hôtel yi dañ leen def léeg-léeg dañuy dem dañuy yooyu je pense que. falmis rek wala mu tax nga nga jël ay xale leen yóbbu ci yéen yoo xamante peut ay xale am 18 am 17 yooyu ñeen dun ñeen yóbbu ci yéen yi alors que Miss war nañ ko mën defee noo xamante ne nga war a jaay image Sénégal sol ay sol rabal sol yenn yi yi nga xamante ni ay ay euh, mën naa wax ne daggit la sol taxaw di défilé si ay kanam ay góor est-ce que nekk loolu dañuy jaay rek xale bu jigéen bi yow wuy ma mm-hmm. bul ma fonto <laughs> affaire miis <laughs> affaire miis ah. moo di que ne eh. eh, miis da nga daan sol ay bikini hmm. dégg nga taxaw ñu tegal la miis dégg nga nga daal di jël lu ñu importer la indi ko fii. non loolu solo salon dëkk boobu Sénégal est-ce que lu ñu jëlee ca bitim réew la dugal ko fii. Ah. soo buggee mu attrayant la ñu ñuy def fële nga def ko mu yaa ngi nii bës boo buggee dugg ci biir kër euh, pale Macky Sall da sol karawe kasor karawaat mm-hmm. yaa ngi nii sol ko si ma karawaat taxaw ak man nii di xool di wax mm-hmm. yaa ngi dégg mu ngi mel ni tey jii dégg nga magasin yi nga gis nii euh, ñu ñu ñu magasin tubaab yi fi nekk nii ñoom Auchan ki ñooñu boo buggee la ñuy am la ñuy def foog nga def ni ñoom. Mm-hmm. boo duggee ci mbir. bu munul dox xoolal xoolal euh, fi ñu toll nii ñu ngi gis ni euh, fii Sénégal amul benn loo xamee ne mun nañu toog daal di ne lii Sénégal lañ ko inventé amul lenn loo xamee ne moom la ñuy def yow boo bëggee boo bëggee boo génnee ba aéroport rek commencé di làkk français di bisanteeg di kéeg yu mel noonu ainsi de xanaa boo nekkee ci sa kër nii bisante sax arabe yi dañ ko doon def ak yéeg yooyu waaye fii xamuñu bisante waaye képp koo gis même gis nga imam bi jógee ci jàkka ji buy taxaw aéroport rek commencé bis gis nga dafa am yenn yoo xamee ne bu euh, c'est chercher la petite bête il faut qu'on soit naturel cette situation là c'est une situation de mœurs donc yow condamné moo li nga xamante ne moo am ci mbir mi mais bu euh, wax ji bare ji te du bujj fenn laay wax boo bëggoon mu jaar fenn dañuy jël procureur mm-hmm. mu jóg daal di xool lan moo nekk ci biir Miss deux mille trente yooyu ak Miss deux mille cinquante cinq yooyu ngay gi ak mille neuf cent cinquante la fay xew la fi xew dañ fokk ñu càmbar ko fokk mu am une enquête. Mhm. enquête boobu nga xamee ne nag euh, amagul lépp luñ ci wax wala wax ci nii dañuy yàq sa la rek. Mhm. waaye li wóor mooy euh, ak lu ci munti nekk da ngay gis que ne euh, ñiy def miss yi fi mu nekk nii. seen caaye mu ngi flotté ak euh, seen jupe yeeg yëpp mu ngi flotté mais li wóor moo di que ni il va falloir que ñu daal di xoolaat affaire bi dégg nga ndax dañ doon xool fële bañ ci kii waaye léegi ñu ngi xool ci gannaaw sàkket bi lan na fa xew. Hmm. tant procureur leeralul loolu lépp luñ ci wax. dañuy wax pour yàq rek comme li ngay wax nii daal di ne ku nekk ci nguur bi boo defee duñ la dóor boo defee duñ la kii. Hmm. loolu moo fi am. kon baax na kon je euh, a jël euh, ay matuwaay ñu mën a ak euh, événement bu mag bi nga xamante fa nga xamante ni moom mooy New York te kii di président Mbagnick Diop doon ko amal di sargal di nga xamante ni ñoom ñooy leader africain yi gën a fës ci àdduna si bokk na si ñi nga xamante ni ñoo fa teewoon ki nga xamante xamante mooy Cellou Dalein Diallo ki nga xamante moom mooy Moïse nekk secrétaire d'État euh, ca ministère des affaires étrangères bu Sénégal waaye ki nga xamante moom mooy Cheikh Ba aussi nekk directeur général bu euh, caisse de consignation tamit aussi moom teewoon na fa bokk sax ñi nga xamante ñoo nekk si lauréat yi donc loolu nga xamante euh, a la ñu war a mën Afrique teg daal di primer ñi nga xamante ñoom ñoo gën développement ci Afrique ñoo gën ci Afrique ñu leen daa leen nga xamante ni mooy États-Unis fa fa yi nekk ñoo leen africains yi aussi ñoom ay ay ay euh, leader am xamante ni mënuñu mën développer dëkk bi donc yow ba nga gisee loolu à chaque fois Mbagnick Diop di di fësal li nga xamante ni moom euh, euh, yi loolu loolu loo ci loo ciy wax. encore une fois. Mm-hmm. li nga xamee ne rek moom laay mën wax moo di que ni président Mbagnick Diop. toujours égal à lui-même. Mm-hmm. ma koy wax rek ak li may wax internautes yi moo di que ni ku mun na def. Mm-hmm. te dafa ku mun rek li muy def noonu nga def ko. ku ku ko munul nga toog. <laughs> ñiy sànni xeer ak yee parce que ñu bare ñu ngi koy dañ koy. waaw ñu koy sànni xeer noonu. Mm-hmm. mais bu leen munee ngeen def su ngeen munul ngeen def actuellement moom la. te yemul foofu. le euh, décembre. dina ñëwaat delloo si waat jëlee Afrique. xëccaale New York indi Europe teg fii. 4.0 ci Radisson bii. Mhm. waaw kon nag loolu dafa nekk loo xamee ne euh, ñoom président Macky Sall ñoom lay wax ne leen. Mhm. dëgg ya waxtu bi nga pendant qu'il encore temps. jël leen effort waa ji muy def nii ngeen intégré ko ci seen politique bi pour que mu daal di mu def tache d'huile hmm. ngeen mun ci borox ndoolu daal di jox xale yi liggéey ngeen mun ci borox ndoolu daal di yëkkati entreprise yi compétitivité entreprise yi exportation yi nga xamee ne mooy développer le la balance des paiements hmm. yi nga xamee ne moom la ñu war a def ñu daal di jël intégré xool li muy def hmm. daal di ko dugal dégg nga euh, teg ko comme un wagon dugal ko ci seen biir politique bi affaire ba dox waaye boo bu defee li muy def ba pare nga ne ko waaw waaw c'est très bien daal di taxaw foofu. Hmm. dégg boo soxlaa dara nga ne ko waaw defal naa la ko nii kii yeegi mel hmm. mais jël leen affaire bi toog moom moo laa di leen jox fi mu saret bi fi mu ko jëmee. ngeen hmm. jubal jubal foofu. mais dafa dafa am importance loo xam ne wax na ko ci ci ci ci kii mooy mu ne euh, Afrique am na toll ci cinquante quatre dëkk yoo xamante ni euh, war nañoo mën a mën a xam nuñ li nga xamante ni moom mooy yenn point yu mag yi fa nekk ñu jéem a xool développer Afrique parce que man sax dama naan sa États-Unis cinquante deux euh, pays la donc pourquoi pas ñu ne États-Unis d'Afrique avec les cinquante quatre pays yi ne a booloo euh, xamante ne moom mooy wàllu euh, technologie de l'information de la communication donc moom à chaque fois daal moom day xool li nga xamante ne ñoom ñoom ñu mun développer Afrique ci ci lu gaaw mu mu ci woo africains yi mais je pense que boobu léegi les africains dégguñu li nga moom moom mooy appel bi euh, monsieur Mbagnick Diop di woote donc yow euh, ndax problème bi ndax problème bi euh, ndax lan la c'est c'est quoi le problème yi nga xamante ni ba léegi dégguñu message bi monsieur Mbagnick Diop di joxe chaque fois. problème bi yëpp lenn rek la Afrique ci boppam. Mm-hmm. dañu nekk ay nit ñoo xamee ne dañu dur d'oreille. Mm-hmm. bu nga da ngay gis ne ivoirien yi fii bu sénégalais jógee bu nga émerger nga gis ñu daal di taxaw di marquer le pas. Mbagnick Diop si initiative yi muy def nii xam nga kan la may fàttali. xadafi mhm. bi muy wax naan le euh, les États-Unis d'Afrique. Mhm. les États-Unis d'Afrique yooyu xadafi dégg nga ay Mbagnick Diop la doon gis ci suuf. Mhm. pour que ñu daal di mun a jël développer affaire bi Afrique verte Afrique bleue Afrique jaune. donc loolu ngay gis noonu dégg nga lan mooy euh, retour bi nga xamee ne. Euh, ñi iñaan ñu ngi taxaw di ko kile moo di tout simplement Euh, jéem ko décourager jéem a fexe ba nga xamee ne waaye li ñu xamoon moo di ne plus nga koy décourager plus muy gën a persévérer dégg nga le décembre mu daal indiwaat euh, beneen teg mais est-ce gisoo fi mu nekk nii euh, le chef de l'État warul sax mën a ut jëm ko andi ci côté jox ko benn kii responsabilité boo xamante ne dina mën a apporter dara ci côté emploi coté développement parce que je pense que avec benn portefeuille bu am solo boo xam man je parle pas de l'autre parce que moom naar n'a rien envier ci yenn ministres yooyu mais juste li nga xamante expérience bi nga xamante ne am na ko expertise bi nga xamante ne est-ce que jotul fi mu nekk nii mu mën a yor lu mel ne euh, ministère de l'économie wala mu yor li nga xam mooy ministère ministère bu bu bu bu emploi wala bu ministère wala économie numérique au moins yenn secteurs yooyu nga xamante ne xam nañ moom euh, il a am na yenn yu mën tax mu yor ko nga xamante ne bu ñu ko ko joxee même fekkee sax c'est c'est pas pour euh, portefeuille mais mu mën a apporter li nga xamante ni moom mooy xam-xam bi mu am mun ko mun a développer pour ñeneen ñi mën a inspirer wu ci moom li muy li muy def gis nga li ma la doon wax léegi rek mooy moom ngay wax noonu waaye Macky Sall waru ko xëcc en terme de euh, ministère buñ koy jox ak kii yooyu comme ni nga ko ah, ah. waxee soxlawul lool. en moom il a besoin. ces yi nga xamee ne ñu ngi novateur idées yi nga xamee ne ñu ngi taxaw nii. dégg nga ñoom ñu mun ci inspiré wu mu won leen naka lañ koy mën a euh, réaliser en acte concret. Mm-hmm. monsieur Euh, euh, tel so monsieur numérique lañ ko mën a tuddee wala monsieur technologie nouvelle wala mosieur bi nga xamee ne monsieur entrepreneuriat monsieur euh, entrepreneuriat monsieur emploi <laughs> monsieur emploi yooyu ay monsieur tel monsieur tel monsieur tel loolu lay am dafay am nag loolu. Hmm. dafay tax li nga doon wax noonu dafay am un mandat officiel ba mu dindee premier ministre day am mandat officiel ku Mbagnick waxal. ngay nekk di balbutier mu daal di la fa def comme boo waxee troisième mandat bi dindi la fa daal di la tagal ñu daal di indi li ñu war a teg ñu indi ay technicien ñu daal di taxaw. Hmm. ndaxte boom buñ ko joxul mandat bi sax day jóge fii daal di dem Côte d'Ivoire euh, les investisseurs ivoiriens daal di ñëw fekk si ko investisseurs américains yi ñëw fekk si ko. Hmm. kon nag affaire bi taal bu yàlla taal sànni ca mat gën fay ko la. Hmm. nii mooy kii nii soxlawul ñu koy jox ministère. Mm-hmm. mais monsieur unificateur monsieur tout le monde monsieur euh, régler emploi monsieur emploi monsieur emploi dafay nekk comme benn ambassadeur chargé de mission avec un mandat officiel. comme comme comme ambassadeur euh, itinérant wala. non non non non non non euh, dafay nekk euh, ministre oh, oh, d'État. Oh, boo xamee ne li euh, innovation yi nga xamee ne moom la ñu war a def sur le plan social et sur le plan international da koy jox mandat officiel. Mm. sur le plan économique. mu daal di mun a réaliser li nga xamee ne moom lay war a def. mais dañ ko rapidement parce que nee nañu deux minutes moo dese ah, donc yow ban ban ban ban message nga koy jox ci li nga xamante def na ko États-Unis parce que je pense que ah, ci li ñu wax dafa mujjoon fees sax ba dépassé sax ah, seen ay seen ay seen ay lu ñu doon xaar. parce que ñoo mos a yokk sax ci euh, siège yi parce que euh, non seulement invité yi ñëw nañ mais dafa am ñeneen ñu ñëwaat parce que ñëw pour découvrir si ñu aussi pour ñëw féliciter ko ci loolu nga xamante def na ko bi États-Unis et c'est pas donné à n'importe qui mu ñu dem États-Unis ak jamono ji nga xamante ne ji ñu wax wàllu mbasag yu ni mel. mais ma ne soo xamee ne ay président chef d' état ak ay hmm. délégation chef d' état ñoo ñëw ba foofu. Hmm. xam nga sànq yaa ngi wax Sely Diallo ak yeeg yooyu hmm. Sely Diallo nekk ko président ay président de la république ay mémissaire président de la république yuy ñëw foofu. et ça repris par plusieurs télévisions africaines. loolu luñ koy luñ koy wax ci kii la xam nga dafa am nit ñoo xamee ne yàlla mooy barkeel seeni ay jëf da ngay profité nag ci la ñuy wax nga traduire ko en acte concret pour mun a te waxuñu ko pour daal di ne kii la mais dañuy constater day ñëw taxaw wax wax wax wax dégg nga xorom sax su ko jëloon muy tawul mu jël ko suul ko xorom sa daal di def benn garabu xorom. Mm-hmm. donc li nga xamee ni moo ci nekk moo di que ni donnons à César ce qui appartient à César. Euh, ay nit yu mel ni moom ñu moom mu ngi liggéey depuis quatre ans mu ngi liggéey ci loolu depuis quatre ans bu nit ñi ñëwoon yokk ñu chaise yi ñu daal di xam ne échec le waaye tey loolu du ko tere du ko tere yëngatu. Hmm. kon nag gis nga ñu mel ni moom ak keneen ak ñeneen ak ñeneen ñoom lañ war a jël recenser leen indi leen. voilà donc euh, mu nekk lu am importance loo xamante ne wax nañ ko ci euh, événement bu mag boobu nga xamante ni euh, amoon na ca États-Unis muy Africa Leadership Award c'était ki nga xamante ni mooy le président Mbagnick Diop doon ñu koy féliciter ci loolu ñëpp ñi nga xamante ni ñoo nekkoon lauréat ci mbir moom ku ci mel ne le DG bu caisse de consignation donc di ko féliciter baax a baax donc li wax nga tàggatoo benn yoon ne parce que ñu loolu ci waxtu mat na. Mor fi may tàggatoo rek. moo di que ni da ngay da ma yëngal. Hmm. waaw yëngal bi nga ma yëngal nag soo jëlee lu tool ni Afrique nga yóbbu ko ba New York. Hmm. nga teg ko fa. Eh, génne ko ñu taxaw di wax déet na waaye nga daal di ne parewuma foofu Sénégal laa jëm. Mm-hmm. dégg nga kooku dañuy jël rek un carton vert jox ko ki nga xamee ne rek mm-hmm. moo di eh, Mbagnick Diop. Mm-hmm. ndaxte li nga xamee ne moom la eh, ñi ma bokkaloon di jàng ñi nga xamee ne ñoom laay weranteel tout le temps ñoom ñoo xamee ñooy jékki-jékki naan Sénégal waroon nañ fi def li waroon nañ fi def li waroon nañ fi def li am nañu un modèle boo xamee ni mu ngi nii taxaw nekk quelque chose de concret. boo xamee ne ba tey jii ni bu ñu ko jëloon daal di ko accroché ci vagon wu décision yi gouverneur politique yi di jël rek léegi tey nga daal di gis ne Sénégal dina mën a toog di exporter Sénégal dina mën a toog di améliorer ay balance de paiement entreprise sénégalaise yi dinañu am li nga xamee ne rek moo di sécurité bi nga xamee ne moo leen di kii ndaxte 2022 bii ngay gis nii dina am nag. si entreprise yu bare bare bare yoo xamee ne ñu ngi fii ci Sénégal yoo xamee ne dinañu tëj te loolu dina yokk chômage bi te loolu nekk na ci ay difficultés yoo xam ne kii li muy def nii su ngeen ci jógul chômage bi dina yokk entreprise yi dinañu tëj te bu loolu amee nag kenn du ñëw ne ko lii wala mbañik la voilà donc li euh, la jaajëfal euh, ci li nga xamante ni wax nga ko ci euh, loolu nga xam mooy Mbagnick Diop di ko jaajëfal aussi di ko félicité donc leen jox di daje ci beneen numéro bu seen émission actu Rewmi kon di fee nekk rek di jaajëfal équipe technique bi ak ñëpp ñi xam ne ñoo ñu seetaan jamono ji ci Rewmi TV leen wax ne jaa ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah